Mbappé mu jàpp neex-neex bi fële ca Paris Saint-Germain loolee bokk na ci yëglekaay yi Barcelone tamit daanaka mi ngi ci biir sëmbaxloo gi a gundaandaat gi nga xam ni moom lañ waroon a nekkee loolee France daal xaddeen bokk na ci li nga xam ni njàmbaas nañ ko ci li nga xam ni mooy yëglekaay yi Marca moo ci ñëw ak ki nga xam ni mooy Mundo Deportivo La Corogne beneen bi mooy seeni i abonnement ngeen def ko bu gaaw gaaw ndax lépp lu ñu dugal ngeen mën koo coppati ci biir YouTube tey jii ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet yëglekaay yi Cheikh Abdou Touré moo leen koy may moom yëglekaay yu am solo yi. gaay yi terminus baa ngi Cheikh Abdou Latif Touré borom kéemaan mi nga xam ne daanaka gone yëpp moom la ñuy wër ci wàllu li nga xam ne mooy ak cëriñ te mu koy def ci loo xam ne lu mu jàng la ci alxuraanul karim ba mu sell moo tax mu am yéene dimbali leen ci li nga xam ni moom la xam yéene leen ko bu baax a baax moom mi nga xam ne kaaraange moo ci man ak li nga xam ne moo nekk ki nga xam ne dafa bëgg bayre boo xam ne bayre bu mucc ayib ubbeeku uh, ni ko danduma ak li nga xam ni mooy kaaraange goo xam ni gu mët sëkk la uh, kaaraange bayra moom uh, daanaka da koy foyee bu baax a baax baax ndamba yi muy defar nag boo ko ñëmul doo ko mën a xam ndamba ya loo xam ni daanaka yu mu gëstu la jàng ko te natt ko ci li nga xam ni mooy asxaar boo xam ni da koy seet bala mu la koo jox bu la ko joxee nga xam ni lépp dëgg la ak li nga xam ni mooy ay chaîne yoo xam ni bu la ko joxee lépp ay tawfeex nga ci gaaw leen woo ko ci li nga xam ni mooy numéro téléphone yi mu affiché bu ngeen jëflaatee dootoo ko rëccu da nga naan alaaji Malik yeex na ma jëflante ki nga xam ne mooy kilifa gu sell gi moom moomee moo leen di may xibaar yu am solo yi. ginnaaw ba nga xamee ni Kylian Mbappé maanaam rocceeku na ndànk gone Paris Saint-Germain cëppeel ko foofee nga xam ne mooy Cardelos daanaka beru na def ab tàggatoom ngoo xam ni maanaam entraînement ni ngeen koy waxee. waaye loolu yëpp moom kese la marka yëgle kay indi ci xëtam mu njëkk daanaka Qatar yi la teg ci taabal ji ak ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé sëy ba nag boo amu chance tas tasar lay def ndax Mbappé moomee bëgg naa dem te it daanaka fi mu toll nii Paris Saint Paris Saint-Germain bi mu demee ba xam ni carte gi jeex na tasaaroo na fi mu toll nii amatul dil amul dara wasin baa dem tool a jaay ko millions yu bari nga mën def sa gafaka xaalis loole tamit moo gën bàyyi ko fa ba nga xam ni maanaam day jeexal foofu ab contrat tous tasar pertement lay dikk ci yoon loolee nag la xam moo tax fi mu toll nii mu bëgg koo jarax 200 millions équipe ba di Al Nassr teg ko ci taabal ji waaye Mbappé bëgg-bëggam akub demam loolee mi ngi ko teg ci meilleur club du monde di Real Madrid fekk na booba Barcelone seen euh, ñi nga xam ni ñooy gane yi doon am match boo xam ni match pressé virus boo xam ni mooy Gasturo moo fa ñëw tojaare fa fële nga xam ni moo nekk équipe boobee di Barcelone nga xam ne dirigeant ya ñi nga xam mooy Mondo Deportivo La Corogne yeneen information yu ni ci am danañ leen ko andil tey jii ci dimanche ji